AFT TV moo may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy aaudu fi kulli mawdihin wa fi awtaani bismi lilahi wa huwa arrahmanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala bihi lana al bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali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 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci ñaar ñu am solo bokkoon ci taalibey sëriñ Tuubaa yi àndoon ak moom muy sëriñ Mor Khady si ak sëriñ Malick Bassine si li may faral di wax rek mag ñi saa bu ñu àndee seeni wax rek ak seeni melo liñ ci jublu mooy ñu roy leen ndax ñoom eh, àndoon nañ ak Cheikhul Khadim ba amoon ngërëmam te ngërëmul sëriñ Tuubaa mooy ngërëmul suñu borom tabaaraka taala te ñu nit bëgg googu rek lañ am sëriñ Mor Khady si ak sëriñ Malick Bassine si ñu bari woon ay xikma lañ te ñu amoon melow jéggi dayoo lañ ba sëñ Tuubaa waxoon na leen na leen seen melow yi ak seen ànd bi ak seen bennoo gi bu ngeen woon alxuraan dana leen nettale faaw alxuraan dana leen tudd ndax ñaar ñoo xam ne nii kat mag ji moo jàngal rakk ji alxuraan ba mokkal nekk ko ci seen wayjur rakk ji dem jàngi xam-xam ba géeju ñëw jàngal ko kii moo jàngal alxuraan rakk ji rakk ji jàngal xam-xam mag yi ñu déggoo woon déggoo gu toll ni lu kiy wax wala lu mu junj boo ko laajee ka ci des dana la ko leeral ku ci masaana am taalibeb tërbiya ba war koo wàccee faaw nga yebal ko ci ka ci des ba kooku itam gërëm ko mu doog a dem ci ay bokkam. sëriñ Mor Khary nag moom ay waxam da ko daan tënk lu baree bare waaye sëriñ Malick lañ ko daan laaj mu koy tinki sëriñ Mor Khary daf daan wax ne yoonu murit de ñaari raa rek a fi nekk raa ak raa buñ ko laajee sëriñ Malick Bassine mu ne lim ci jublu mooy roy ak romb roy ak romb lépp loo gis nit di ko def tam tege ci xam-xamu sharia bu leer nañ ñi tege ci luñ xam roy ko saa boo àggee si nag loo xamut nga gis nit di ko def bu boobaa rombal moo tax sëriñ Mor Xarit daana wax ne bul roy boroomu may bul roy boroomu moy ñu ne ko lu tax mu ne boo royee boroomu may mu feey nga diig boo royee boroomu moy lu ko dal dal la te lépp loo gis nit di ko def mu jaaxal la benn mu amuk may di ko def wala muy mooy di ko def sëriñ Malick Ba si nag wax ne roy ak toppandoo sax bokkuñu daal ne roy mooy gis kuy dawal wata wala kuy fee ci géej nga laaj na mu def ba man lii ñu ne la moom kat da ko jànge woon fee la jaar jaar fee ñu jàngal ko ko mu mën ko yëwin nga jaari fam jaar loolu mooy roy kon roy lu baax baax na waaye faaw nga jaar fa waaj a jaar mu ne toppandoo nag mooy gis kuy fee ci géej rek nga ne ah diw de ëpp ma ma daal di sóobu te jàngoo ndox nee na dig ngay def faw dangay ngay seen xam-xam yi yëpp nag boo ko dajalee dafay dellu ci xam-xamu shariha ak xaqiqa ndax shariha ak xaqiqa day ñaari xam-xam yu jege waaye dañoo wuutee lool dañoo wuutee eh, ndax shariha moom day wax ne laajal laaj ma lépp lépp laaj ma ko fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun xaqiqa di wax ne bu ma laaj dara fa ini tabaxtane fala tasalni an shay'in hatta uxrija laka minhu dikra ci la doxoon ci diggante yonent yàlla Muusa alayhi salaam ak jaamub suñ borom boobee ñuy wax xadir kon danañ ci dellusiwaat àggale ko ci roy ak romb incha allahu muy xam-xamu shariha ak xam-xamu xaqiqa ñoo ngi soññaat sunu bopp di soññi mbokki taalibe bi yëpp ci liggéeyu waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di waxaatit ne ñi nga xam ne ni am nañu carte membre eh, am numéro nañu woote ci numéro yi ñuy joxe joxe seen numéro bu ko defee ñu dugal leen ci xaajub numéro cinq ba ndax booba loolaa ko tax a jóg ndax liggéey bi gën a jàppandi ci ci nun